Voilà, bon, bonsoir. Euh, Aujourd'hui, nous sommes là à la caisse de dépôt et de consignation. En tant que mandataire Mandao, je viens déposer, je viens de déposer tout de suite notre chèque de la grande coalition Passe-Passe dirigée par le, par le président Mohamed Ben Diop. donc seen euh, taxawaay tey ci réew mi ba tax ngeen euh, bàyyi lépp taxaw pour ànd askan wi. ñëw pour li nga xamante ni si mooy defar Sénégal suqali Sénégal donc yëg-yëg boobu ak taxawaay boobu nan ngeen ko jàngatee ba tax tey ngeen jóg pour ñëw def seen dépôt fii ci caisse sécurité caisse euh, des dépôts mhm. pour ñëw taxawu Sénégal donc ñi loolu ci loolu lan moo tax ngeen am yëg-yëg boobu pour def ko voilà yëg-yëg bu ñu am la majeure partie des Sénégalais moom la am actuellement ñëpp xam nañ ne dara doxatu ci dëkk bi sur le plan de l'agriculture l'économie l'élevage l'éducation rien ne bouge actuellement looloo tax le président Mohamed Diop après avoir fait ce constat bàyyi li mu doon di yëpp pour Europe dellu siwaat fii Sénégal pour mën a jël réew mi teg ko ci yoon bi nga xam ne moom la Sénégal yi Sénégal yi di xaar pour changer xarkanamu Sénégal sur tous les plans voilà son programme est très vaste n'est-ce pas pour sauver le Sénégal actuellement merci jërëjëf suñu Ousmane euh, kon ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh Maïssa Gueye bokk ci coalition euh, Pass Pass Cheikh Maïssa ñu ngi lay siyaare. ñoo ngi lay siyaare sëñ Saliou di sant yàlla bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah di nuyu waa adduna bi yëpp di waa Sénégal di wax alhamdulilah rabbil alamin ba nga xamante ni yegsi nañ ci deuxième étape. ndax première étape bi ñu àndoon ak grande coalition Pass Pass ànd ko président Mouhamed Ben Diop étape bu njëkk bi dañoo waroon Sénégal yëpp wax na ni bëgg nañoo bokk ci jongante yi jëm. pour jël réew mi liggéeyaat ko delloowaat ko Sénégalais yi ni ko bëggee euh, deuxième étape bi nag la ñu waxoon Sénégalais yi lëndul ñëw di di ko dëggal si tey indi sunu fane fanweeri million ñoo déposé ko tey ci kees bi nii ba jël sunu quittance nii mooy wane ni tey lan doon wax dañ ko doon wax waaye tey dëggal nañ ko pour bokk ci jongante yi jëm. man Thierno. gërëm gërëm Hmm. ban liggéey ngeen liggéey loolu sant nañ ci yàlla bu baax passé étape moom ñu ngi koy ñaan suñu borom ndax galgal yi bëri na waaye bu dee ci li nit xam wuti nañ am nañ loo xam ne bu ñu ko laajee juróomi yoon ñu joxe ko te xale yi vraiment am nañ équipe boo xam ne ñu ngi ci logiciel di ko liggéey liggéey bi nga xamante ni noonu lañ ñu ko laajee ci li nit xam bu fekkee li nit xam dong la sant nañ ci yàlla bu baax dañuy jàll ak suñ ko yàlla dogalee waaye parenage moom bi nit ñi di jug di def leneen wër nañ Sénégal ba am ay parrainage yu bëri ndax suñu premier dépôt parrainage rek 121 800 la woon bokkul ak li ñëwaat ci ginnaaw yëpp kon ñu ngi koy liggéey ci xel ak ci sago bu njuumte amul dara amul te yàlla dogal ko dañuy jàll parrainage dem ci joŋante yi jël Sénégal nag liggéey ko ni ñu ko war a liggéeyee comme ni ko Sénégal yi bëggee. waaw ah, ñu bëri dañuy wax ni Mohamed Benn euh, sénégalais yi xamuñu ko bu baax loolu ce que du nekk handicap bu ñëwee ni day bokk ci joŋante yi nga mënul doon handicap da nga naan ñenn ci sénégalais yi xam waa ñenn ci sénégale yi mais waaw ñu ñu si ëpp nag xam nañ ko ndax xamul li tax ñu si ëpp xam nañ ko on a sillonné tous les 557 communes du Sénégal kon ñu si ëpp xam nañ ko on a travaillé en sous ma ne bombe atomique ba tey dañ ko ragal te musul tàkk ay composants rek la woon dañu gëm gëmloo kon ñu ngi leen koy gëmloo ñu bëri xam nañ ko te incha allahu rabbi bu ñu demee ci élection yi dañ xam ni parrainage ak ñiy voté bokkul li gars yi dàq parrainage dàq nañ présence mais uti nañ votant te dinañ voté dinañ gagné incha bu ko yàlla dogalee am cër na mu wax ci ndaw ci euh, kàddu ndaw ñi ci parti Pass-Pass bi nga xam moom mooy président jeunesse bi na ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay di sant yàlla bu baax ci yombalal bi nga xam ne tey may nañu ko ci processus électoral bi nga xam ne nii moom la ñu jëm incha allah 2024 ci étape bi nga xam ne nii muy dépo caution tey jii yàlla may ñu possibilité ñu déposé ko di ci sant di ci gërëm également ñëpp ñi nga xam ne nii jàpp nañ ci liggéey bi ba yegg si fii tey looy wax ndawi Sénégal tey ci li nga xam ne moom ngeen fas yéene ànd koog ñoom ci Sénégal. waaw li ñu leen di njëkk wax pour le moment mooy nañu préparer ñi nga xam ne ni déposé woon nañu seeni i carte électeur ñu dem jëli ji ko. préparer également continuer ba tey di pare ne li nga xam ne mooy grande coalition bu pas-pas donte ñu ngi ciy liggéey parrainage bi daanaka pare nañ. comme tey jii nu ñu paree ba ñëw andi suñu caution donc noonu la ñu paree ci parrainage bi di leen ci invité à que ñi nga xam ne. 2024 bi ñu jëm incha allahu rabi ci élection yi le bon choix mooy grande coalition bu pas-pas ki ko jiite di le président Mouhamed Ben Diop. li tax ñu def suñu choix ci moom au-delà de sa personne parce que ñaari mbir mooy déterminer homme d'État c'est son parcours et son discours tey bu ñu xoolee son parcours tey macha allah mu nekk benn CV bu riche bi nga xam ne ni lépp xam-xam la étant jeune. mu capitaliser loolu noonu yëpp donc suñu xel daf ci gën a dal leneen li également mooy son discours discours bu muy àndi mooy discours yar discours teggin discours développement tey jeunes yi tax bu li tax jeunes yi tey euh, mobiliser wu nekk ci ginnaawam fas yéene ko jàpp pour 2024 incha allahu rabi. waaw ah, waaw asalaamaaleykum ah, ñoo ngi nuyu ñëpp ah, di ziyaare ñëpp di sant yàlla bu baax ndëkk Euh, di jiital ngërëm gi aussi suñu président parce que yokk nañu fit parce que dañ naan maa ngi nii kuy nëbbu du ko wax te yaakaar naa ne kuy làmbatu xamoo fa nga jëm fii doo fi taxaw te doo indi sa cheque déposé ko ah. donc fa mu jëm xam na ko ñeme na ko yokk nañ confiance bi ci moom gën nañu laxasaayu wan ko ne ko daal ñoo ngi ci ginnaawam di invité aussi euh, sénégalais yëpp ñu xam ne le bon choix président Mouhamed benn Diop la parce que xam na fu mu jëm làmbatuwut di wax tamit au nom de toutes les Linguères que ñu ngi invité ñëpp si suñu parti ñu ñëw jàppandoo liggéey génn sénégalais yi si coono bi nga xamante ne si la ñu nekk waaw loolu daal mooy suñu message.